tubaab bi si pexeem ak muusam si yërmandeem la ñu liggéeyee beneen stratégie bu muy def. pardon. sàcc yëpp téléphone tactique yi la ñuy wër parce que xam na ni ñooy am whatsapp instagram ñu créé ñu ay téléphone simple léegi bu bëggee dugg facebook si la ñuy dugg instagram snapchat yenn saa ñu dugg Viber. sa papa dafay fen. yow gone gu xonq gi yow yaay lijjanti kuy luy wax dëgg ak lu dul wax dëgg magum jëm dina taxaw nga naan waxul dëgg. maa ngi jéggalu ci kàddu fas sax yenn saa yi nee ko kor baax na ndax yenn saa yi mu daw ba xaw ma de ma damay rek parce que yow nga ne xamoo ma xaw ma la danga nga jël sama xaalis ñëw sama appartement depuis lool mënu ma la gis dama lay envoyé samay message doo ma tontu ma lay woo dooma jël daay daay da daa hmm. camion bee wadd yow nen yëpp tuuru benn nen tojul dafa bonde benn par benn chauffeur bee wàcc foraat nen yi dugal ma sàcc ñaari nen mooy nen yi ma omelette fii keroog ñu ndekkee Singo téléphone bi amul WhatsApp de ah, nga toj nen yi ah, da fexe noo wàññee jaan bi ñu waxaale ko ko waxaale at ah, moomul solo